jërë ngeen jëf mbokk yi fii la ñuy jeexalee li nga xamante ne moom mooy face à face bi ñu fi dajale woon tey combat baa ngi nii caatu fora ah mu féete sama droite waaw ndaa moomu xees bi ak ki nga xamante ne moom mooy au sud ah, ñoom ñaar ñu war a bëri le 24 ci combat Tapha Mbeur bi ak ki nga xamante ne moom mooy moom mooy Gamou Gueye au sud maa ngi lay bëggee bu baax a baax di la ziar bàyyi la nga nuyu mbokk internet bi. waaw ah, maa ngi lay fay. di wax gannaaw ba ñu sante yàlla julli si yonent bi sant sama yaay di santaat sama yaay di ñaanal sama papa fi mu nekk gënal ko fi mu jóge quoi xam nga di sant tamit waa yaraax bi ma jóge yëpp rawat na rawat na sama doomu ndey sëriñ Ndiour ma àndal nii quoi di ko bëgge di nuyu tam adversaire bi caat xam nga di wax na daal maa ngi fi di wàcc sama combat ak moom di ñaan yàlla mi yor ndam yaanam yàlla may ndam si si kawam quoi xale la. bisimilah aouzu billahi mina seytaani rajiim bisimilah rahmaani rahiim. ginnaaw bañ sant yàlla ñu ngi julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur ah. eh, di sant suñu sëriñ suñu wasila suñu lépp sëriñ Sidi alxuraan waaw di ko nuyu di ko tatagal bu baax di sant sëñ Fallou Fall waaw. di nuyu waa jaamu gën yëpp waa Fora Sika Mbaaw di nuyu tamit sama mbokk Haalpulaar yi bandiraaɓe Haalpulaar kala mbiyo mbiimi mbiimaan to mbaawɗaa wonde fof mbiɗen nodduma beñi combat Euh, le vingt quatre décembre incha allah. fii ci arène nationale waaw fii. di nuyuwaale Darki Ndaay waa jaamu gën are am tableau guy ga jeg saaw tëli maam jaara waxi naan ah Kër Masar Tivaouane Peul sama booy foofu Apix ñëpp maa leen di nuyu di leen bëggee. na nga demoon Yaraax. Yaraax dama faa romboon rek. boobu fekk na combat bi taxaw. waaw. noo fi doon def. ah Yaraax xanaa bokkul ci dëkk bi nit fu mu am soxla du fa dem. sama soxlaa ma fa yóbbuwoon. Hmm. doomu yaraax ngay bëral de mu ngi nii taxaw. Hmm, loolu du danger. ndax benn bu mer. bu nekkee doomu yaraax tamit moomul yaraax deux cent cent cinquante mètres rek la am. waaw am na gaynde bu mer la laa wax. waaw dara ñun moom ay gaynde yu ndaw lañ ñooy màgg jaaxal yi màgget yi bu dee moom gaynde gu mer la ñun ay gaynde yu ndaw lañ dañuy màgg jëlee fii màgget yi. kan moo màgget. Ah, rek kan mooy gaynde bu màgget bi. waaw ah, man daal gaynde bu ndaw la maay màgg jëlee fii màgget yi. <laughs> Lamine. Hmm. xam nga wax moom neex na mais jëf moo ëpp solo quoi xam nga te ku ne xam na ne bu doon yoonu làmb rek kii sax du ma bëgg moom quoi. Hmm. xam nga mais nag li ñuy wax ka làmb moom moo baaxoo noonu. waaw léeg day laaj nga tourné bëgg ki nga xamante ne ñooy ñëw. mais man l'essentiel mooy li ma waa moment bi mooy liggéey te incha allah bu boor bi soufflé naa ko wan ne du man ak moom. du yéen ñaar. waaw incha allah bu neexee yàlla ak yéen tamit. waaw loolu waxam la rek ak bëgg-bëggam ak décision parce que nit ku nekk tamit sa bopp nga gëm rek mais man moom mooy li ma la rek aw ma ci tànk ginnaaw aw ma ci baatu ginnaaw ar bu soufflé dañuy jëflante. may ñaan ndam si kawam. la nga daan def waaw mooy li mu wax rek nee na daa tourné bërëg man. waaw ah, loolu yëpp mën naa nekk parce que bi muy bëree moom ñun boobu dunduñu sax làmb peut-être. waaw ah, xëy na nag tamit suñuy jéego ak suñu coow moo ñu booleeg moom di ñaan bu bis baax rek comme que moom puusul paasul mu may ñu xajal ñu dem quoi parce dañoo soxla quoi. Euh. Lamine. waaw. ma waxoon rek laay waxaat. li ma waxaat. incha allah bu neexee yàlla ak yërënte bi le 24 décembre. su bëggee daanu bu xeexee daanu. lu mu def daanu. waaw incha allah yaa ko ëpp doole. non bokkuñu. bokkuñu quoi. xam nga xanaa lu mu moo tax nga xeeb moom champion lu mbëgg la def na ay preuve am am ay am ci ay ndam te làmb bu mu am day dëggal boppam def fulla def faydam du dëgg. ba aw xam nga. mais man li ma lay wax mooy xam naa li si man. te xam naa ne tamit tey jii nii. mënoon naa bëgg sax ba àgg fi ma ma àgg te du ma daje ak moom. waaw mais nag bu yàlla defee nag ñu daje. dañ ciy santaan yàlla bu baax a baax. ndax am na ñu bokkaloon génération. ñenn nañu génn nañ bëreetuñ ñenn ñi daw nañ tukki. ñi ñenn ñi tey dañu sottiwaat gàllaaj kon ñun bu ñu nee ba yàlla may ñëw tal ak fekkee ba ñu mën a ñëw taxaw. nekk fi ba tey ñuy soxla suñu combat xam nga kon loolu sant yàlla la ndax adversaire yi ñu waxoon yëpp bëgg na. Mm. adversaire yi gën a fuuy sax biñ la nee yéen ak loosoo. dañ nangu yow yow xam nga ci dara seeti nga mbër bu dëgg géej waaye mm-hmm. bu mujjee bëri ak papa ak kii Jacob du dëgg mm-hmm. te ñoo ñoo dàq tànn mais parce que am na empreinte boo xam ne boo ko marqué wul si làmb gars yi duñu sawar a bëgg ak yow mais est ce xam nga lu lay xaar ci combat bi ak li la war ci combat bi ndax yaa ko wax sànq nga ne waroon nga bëree ba egg fi nga war a egg te doo bëree moom parce que tamit génération ñoom ñoom ñoom ñoom trompeur nga woon ah ñoom ñoom ñoom ñaari yaar si ay ñoom lagros mm-hmm. parce que xam nga lu lay xaar ci combat bi. bu baax a baax lu may xaar ci combat bi combat bi lu mooy ñëw li fa war a man ma def ko. yàlla may ma ndam ma ñibbiwaat si jaam ak salaam incha allah. Mm-hmm. sa waay na day rectifié wu le 24 décembre. waaw ah, bu soobee yàlla bis baa dina gën a juum kon bu la day rectifié wu ndax man wu kaay quoi. ma ñaan yàlla yàlla may ma ndam si kawam wax ji di bëri mm-hmm. parce que am nañu bëri yoo xamante ne du wax quoi dañuy jëf ñun dafa am li ñuy xaar waaw xëy na moom mooy lim la wax rek. tardement moo ko boole ñun mais ñun aussi génnee ko làmb ji moo tax ñu jël avance. tax parce que xam nga ku tardé bay bëre ñu bëre huit combat kon yow da ngaa bëgg a dabuwaat mais ñun dañ koy génnee làmb ji dem suñu yoon. génne la la bëgg. yéen incha ko delloo fi mu fi mu bokk. mu moom fi mu bokk. le 24 naa ko fa delloo. muy fan incha allah moom xam na fi mu bokk. Hmm. naa ko fa delloo. aywa lan nga wax waa Yarax. waaw li muy wax waa Yarax moom mooy mobilisation bi quoi surtout ci côté boobu la ñuy wax xam nga te jii tamit di bëggee tamit promoteur bi tëgg làmb ji ak ñim nekkal ñëpp ku si mel ñoom Lat Diop xam nga sonn nañ ci làmb ji bëgg mu taxaw di wax ne tamit les Amazone de Yarax xam nga di leen wax ne nañ def mobilisation bu baax a baax jiital si Mami Diaw Ada Ndiaye Diobé Ndiaye xam nga ñoom Kumbis xam nga ak ñoom ñëpp. ak suma mafia bi sama booy xam nga boo waa sell yoon bi ñoom Saliou Aldo xam nga ñoom Patrick ñoom ñëpp di leen woo di woo tamit waa handball sport sama papa nekk yëpp di wax ne nañ def mobilisation ñëw taxawuñu sama mag yi nga xam ne ñoo ne bitim réew ñoom maa ngi leen siy woo ku mel ni boo maasa xam nga sana baaba kabogo laas dansé Serigne Ndiour sama doomu ndey suma xarit suma lépp nga xamante ne tey jii mooy sonn si man xam nga di woo tam waa Yarax yëpp di woo Baye Cheikh États-Unis di woo Baye Cheikh États-Unis bu baax ndax mu ngi jàpp si làmb ji waaw xam nga ñoom maanaam maa ne Kin Ndiaye Idi maa xam nga gaa yëpp quoi Omar Seye Tafa Diaw quoi amu seen fay nuyu sama mbokk soosee itam maa ni ma dinkool bel ngaal konton la ngaal jay la al dimma jikandoo nga combat sotole alin so dowaala alin so dowaala fo nga victoire ko soto di wax daal ku ñu limul rek dañoo jum quoi xam nga fi teew merci li may tàggatoo mooy comme li def rek dañuy woote di woote waa li ko dalee post Thiaroye ah Thiamaguen Fass Mbao Kër Massar Boune Yëmbal ah tëli maam jaara samsam 1 ba 3 caaray guy ga waxi naan aream tablo xaadim di woo derki ndaayab di woo sama gaay waaw di woo ku ci mel ne Matar borom Amérique ak jabaram di ko wax lamb ji sa lamb la waaw di woo tamit sama benn xarit bu tudd Alpha mi ngi fi depuis fan yëpp di wax combat bi sa combat la waaw di woo darkindaay aw ma seen fay di woo waa are am bi bilaay di woo ay Bada ah, ay Babacar VIP di woo sama DG wëcc aw ma fayam waaw wëcc borom cag-cag yi di ko woo di woo Baba As ah, ay Malick Pape Laurent aw ma seen fay di woo non pare gu de ngay jaajëf alma micro yi ma tee damaa war a woote nga damay bañ gaay dagg nañ bàyyi loolu génn parce que mu gaaw mu gaaw léegi mu gaaw mooy loolu di woo ay Mbaye Fall waa Fora Papa Sina di woo biir Fora bi sama booy ay Alseyni Alsan ay Ifra ay Isma xam nga Fora ñëpp waaw di woo Umarel Baye Fall borom président des des Mbay Fall ñoom ñëpp barke yàlla bu ñu limee dañuy juum di woo tamit gaan Soulay di woo Cheikh Ba borom poste di woo ay ñoom rës la pro ah di woo jàmbaar yëpp aw bu ñu limee dañuy juum ay Fallou Koundoul amuñ seen fay di ñaanal tamit sama mbokk yi am combat nekk jaam gën yëpp yàlla may leen ndam suñu mag yeeg suñu rakk yeeg suñu morom yi ñun ñëpp union fait la force di nuyu waa 100 pour cent bi bu baax a baax a baax a baax di wax nag waaw lu taw tax xamul rek daa